وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurril mayamin wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaqa sun borom yokk ko fan yokk ko ak wér ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéenam di ko ñaan njabootu Serigne Touba gépp waaye di ko ñaanal suñ bopp yi bi talibé Sëriñ Tuubaa yëpp desuwaat seen télévision Lamp Fall ci seen émission xam sa diine bi yéen mii am ci ajuma ju nekk ci waxtu wi seen mbokk sëriñ Mor Mbàkke di ko taxawee xam ngeen ne ajuma jële am na tomb bu ñu tàmbali woon ba jotoon caa sori muy tomb ba am solo ci lislaam am solo ci dundu jullit te mooy tuub jotoon nañ cee indi ay tomb yaatu ba tolloon ci fi Sëriñ Tuubaa di leerale ne ki texee di dëgg dëgg dëgg tey ko alku mooy ki faatu yóbbale bàkkaar bu mu tuubut tuub gu sell loolu nag doon lu mat a bàyyi xel fal haaliku shaqiyu jiddan man xaraj min haadihi dunya bi danbin wa xaraj min xabli tawbatin nasuhin lil ali subhaanahu rabban li kursiyin ali moo tax dañuy wax ne ki faatu te yóbbaalewul bàkkaar yóbbaalewul bor ca saasa dañuy dañuy jël ak ruuxam yóbbu ko ca li illiyin ma fi ñu dajale ruux yi ñu nga xam ne ñu texee lañu waaye su fekkente nag dafa yóbbaale bàkkaar bu mu tuubut wala mu yóbbaale bor buñ fayut dañuy gàllankoor ruuxam du mën a àggoon ca ruuxu ñu taxe ña bàkkaar ñuy fay ay borom suñu boom jégal ko ci yërmandeem ak ruuxam door mën a àgg ca ruuxu ñu taxe ña eh, moo tax nag ñuy bëgg nit ki su faatu ñu daal di fay ay borom ca saasa waaye ñaanal ko yàlla it ak njëgal di ko ñaan ak njëgal li ëpp sol ci li ñuy ñaanal ko faatu mooy ak njëgal fii nag moom li nga mën a dégg mooy yàlla na yokk yàlla yo koy leeram waaye nag ñaanal ko njëgalu yàlla yërmandeem moo gën moo gën loolu donte donte baax na waaye la gën rek mooy ñaanal ko njëgalu yàlla yërmandeem ndax njëgalu yàlla yërmande ci la lépp nekk euh, su ko defee nag kon euh, bakaar kon ñu xam ci lu bon la lu tar la lu dansé la yàlla sax coobareem bu ko sooy bu ko sooy mën naa xëy xëy jéggalub jaamam ci lu dul muy tuub su ko soobee lu dul nag muy bàkkaaru bokkaale bokkaale moom suñu borom nee na du ko jéggale lu may cig tuub inna allaha laa yaxfiru ay yusrika du jéggale an bi ci buñ ko bokkaalee waaye wa yaxfiru ma doon zalika dana jéggale nag beneen bàkkaar bu dul moom eh, li may yasha mooy ñeel ku ko sopp waaye nag dañ ciy déggal ne bu fekkee ne tuub ko waaye tuub nag moom bakkaar bu mën a doon soo ko tubee yàlla jégal la ko bakkaar lu mu rëy rëy donte bokkaale la soo tubee tuub ko sal sunu borom la ko ja bàkkaar yi muy jégal ci coobareem ci lu tuub nag ci moom xam da day jekk-jekk coobareem mu jégale ko bokkaale bokk ci bokkaale moom tuub gu sell ci la ko yàlla jégalee lay tegtalan dana ko jégale ci ci ci ci ci ci tuub mooy li wax ne laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia bu leen naagu mukk yërmande yàlla ndax yàlla bàkkaar yépp lay jéggale bàkkaar yépp yaxfiru dunuba jamia jamia moom bàyyiwu dara tuub kon lu am solo la lool waaye waru gar la itam ci bépp jullit tuub waru gar la waru gar nag eh, dégg ngeen jàngal naa ko ci njàngal ay def naa ci émission yi émission ci seen émission fardul ne ba ngeen xam warugar mooy lan dayoom ak wàccuwaayam tuub nag warugar la kon wees na koy bàyyi xel jam jamono ji nekk te tuub nag kenn du ko weesu kenn du ko wees maanaam dem ba nit ki baax ba nit kii kat moom weesu naa tuub déedéet dinga sëñ sëñ Tuubaa li muy sell sell sell ndaa sax tuub waaye ki gën ñëpp Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa dafa saxoon tuub te da da ca ca ca ca kanam dana leer ci kanam incha allah moo tax Sëriñ tubaa di nettali ci Munawwiru Sudur ci ne tuub juróom-ñaari martabalaam tuub am na juróom-ñaari daraja juróom-ñaari wàccuwaay ba ci njëkk tuub ga ci njëkk daraja bi njëkk ci daraja tuub martaba bi ci jitu mooy tuubug yéefar bàyyi ko ci kéefaram jëm ci lislaam ngir doonu jullit kii yéefar la woon ba yàgg leeru ngëm suñ boon suñ boon tàbbal ko ci xolam mu xam lislaam rek kee dëgg mu fas yéene tuub génn ci kéefar gam nekkoon tàbbi ci lislaam loolu mooy daraja bi njëkk mooy mooy euh, euh, bi njëkk ci maraati bi tuub yi loolu la Sëriñ di wax ne loolu nag coobari sun boo ak ndimbalam ci lay amee loolu la Sëriñ di wax ne tawbatu kaafirin minal kufri shadid bi idni rabbihi ila diini sadid ba njëkk mooy tuubug yéefar bàyyi ko ci kéefar gu targa ci coobaree sunu borom ak kàttanam jëm ci diine ju jub jiite sell ñaareelu martaba bi ci maraati bi tuub mooy tuubug jullit ki nga xam nekk na ab jullit ba noppi nekk na it ku sellal tuub gi muy tuub bàyyi ko ci bakkaar yu mag yi euh, ngir soññ ak sàmm ngir soññ gum soññ boppam ak sàmm gum sàmm tax muy tuub bakkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi dañ ci ñëw ci kanam na ci waxtaan dañ leeral mooy lan ndax léeg nga dégg ñu am yu mag yi bàkkaar yu ndaw yi looleen deqale dañ ci ñëw incha allah kon ki doon ab jullit bu sellal di tuub bàkkaar yu mag yooyu ma ñaareelu euh, mooy ñaareelu daraja walla martaba bu tuub ñetteelu martaba bi mooy tuubu aji maandu ji ki nga xam ne nit la ko maandu suñ nee maandu ci lislaam nag suñu ne léeg-léeg nga dégg ñu ne diw dafa maandu ko maandu la suñ ne ñu naan itam imaam ju maandu maandu ci lislaam nag mooy koo xam ne du jëf bàkkaar bu mag teyit du sax ci bàkkaar yu ndaw yi du jëf bàkkaar bu mag te du sax ci bàkkaar yu ndaw yi kooku su ñuy wut seere moom la ñuy wut maanaam bu naan bu ñuy takku sëy nañ wut ñaari ñaari seet yu màndu kooku lañuy tànn su ne weer bi feeñ ndax eh, ñaar ñaar ñu wax nañ ko suñuy seet imaam wut imaam itam imaam ju màndu kooku la ñu tànn suñu tànn njiit kooku la tànn kooku su ñaanee suñu borom da koy nangu su ñaanee suñu borom day nangu ñaanam kooku nag tuub gi muy tuub gannaaw jëf bakkaar mag tuub gi muy tuub bakkaar yu ndaw ya koy rëcc léeg-léeg loolu mooy ñetteelu daraja ci ci daraja tuub yi ñaar yoolu sin waa boole ci aw bayit ne wa tawbatul muxlisi min kabairi wa tawbatul aadili min saxairi ñetteel mooy tuubug aji sellal ji ci bakkaar yu mag ya muy jëf ak tuubug aji maandu ji ci bakkaar yu ndaw ya muy jëf ñenteelu euh, martaba bi ci ci maraati bi tuub mooy tuub ki nga xam ne ak maandam sax na maanaam dem na ba ak maandoom sax maanaam maandu na maandu gu sax tànkam teg na ci kaw alal ibaada mooy mi ngi jaamu yàlla dëgg dëgg ni mu ware di di moytu bu baax a baax lenn ci pakk yi koy filli mooy rëcc rëcc yu ndaw yi koy gaar léeg-léeg ndax dañuy wax nit mënut a ñàkk ay rëcc rëcc rëcc rëcc koy rëcc nag tuub ga muy tuub rëcc rëcc yooyu kooku loolu mooy ak tuubam mooy ñeenteelu martaba ci maraati bi tuub yi loolu Sëñ Tuubaa di wax ne wa tawbatul aadi wa tawbatul aabidi dil xayraati mimma yasuuhu min al asaraati mooy tuubu aji jaamu yàlla ji kii borom yiw yi ci li koy naqari ci boppam ci xeeti ci xeeti fakkastalu ay rëcc rëcc juróomeelu martaba bi ci maraati bi tuub yi mooy tuub ki nga xam ne sóobu na ci yoonu yàlla di jaxaarante ak bakkanam di jaxaar ak àdduna ak seytaan ak bànneex nga xam ne mooy ñeenti noonu yi gën a eh, rëy gën a mën a gàll ko doomu aadama seytaane bànneex ak bakkan ak dunyaa ku leen fetal daane nga noon yu bon yaa la si Musaa Ka waxoon ak bépp gàllankoor buy dox diggante mu borom subhaanahu wa taala mu xeex ak moom kooku la muy tuub mooy la muy yëg ci xolam ci xeeti gàkk ak sikki sàkk xeeti gàkk ak sàkk yi kooku jëfatul bakkaar bu mag jëfatul bakkaar bu ndaw waaye léeg-léeg sikki sàkk ak i gàkk yu muy nemmi ko ci xolam yooyu lay tuub loolu mooy juróomeelu martaba bi loolu la Sëñ di wax ne wa tawbatu saaliki liltifaati min ilalil qalbi wa min aafaati juróom benneelu martaba bi ci maraati bi tub yi mooy tubu aji sàmm ji su tàgg tàbbee ci lënd aji sàmm suñ ne ku sàmm nag ci lislaam mooy ku dul jëf mukk lu xaram nit bu dee ba jëfatul mukk lu xaraam dañuy wax ne kii de ko sàmm la saa bu déggee sàmm mooy loolu nit ku sàmm mooy ku dul def lu xaraam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne innal xalaala bayyinun wal xaraama bayyinun wa baynuha mushabihatun nee lu dagan leer na nàññi xam nañ ko lu xaraam it leer na nañ xameef na ko am na seen diggante ne lu ñu tudde ay ay ay ay ay ay ay mushabihaat muy ay lënd yoo xam ne yaxrutu ja maanaam amul benn nas quraani wala wala wala xadis boo xam ne da caroot maanaam amul maanaam aaya alxuraan rotu ca wax ca xadis it jotu caa wax nga xam ne xëy na ump leen leen mooy àtteem ci lislaam loolu ju tudde ay lënd ku ko bàyyi lënt yooyu ku ko bàyyi salaa salaam nee na ku ko bàyyi ñoŋal na ab deram ñoŋal na diineem waaye ku ca nekk nag ku ko bàyyiwul mu ngi mel ni kuy sàmm ci diggu tool diggu tool ka ca sàmm ña ngay ragal jur ga dugg ca tool ba tala tala tala ñaar li ci ëpp loolay am subaa ragales na ca róor ku ba ku ne ci lënt yi ba yàggee nga tàbbi ci lu xaram kon tubu aji sàmm jooju nag saa bu tàbbee ci lënt xam ko nee naa la du def lu xaram ci lënt loo xam ne xamul lu ci sàmm mu ko lënt yooyu moom lay tuub kon tuubam googu mooy juróom benneeli martaba ci maraati bi tuub yi loolu Sëriñ Tuubaa di wax ne wa tawbatul wari'i fil jihaati mimma yasuuhu min ashubuhaati juróom-ñaareelu martaba ci maraati bi tuub yi mooy tubu aji àgg ci yàlla xanaa su kenn doon weesu tuub ñu ne ki àgg ci yàlla kay xanaa kon war naa weesu tuub waaye fii moom juróom-ñaareelu mooy tuubu ki àgg ci yàlla ba noppi ki dem na ba jàkkaarloog màggug yàlla gi subhaanahu tedd ngaam di ko teewlu di teewlu màgg yàlla ci xolam kooku saa bu xolam gestoo lu toll ni tarfata ay ni xool lu dul màggug yàlla googu loolu bàkkaar bu rëy la ci moom kaagi ci yàlla saa bu xolam rafee xool lu gàtt diggante xefe mu xool ci lu bokk te yàlla gi loolu bàkkaar bu rëy la ci moom loola lay tuub moom mooy juróom-ñaareelu martaba ci tuub yi te mooy bi mooy bi ci mujj it loolu la Sëñ Tuubaa di wax ne wa tawbatul mushaahidiina tajri min ghafalaatil qalbi xawfa zajri moo tax kon Sëñ Tuubaa di wax ne ki nga xam ne kon ki nga xam ne jëfkatu bàkkaar la eh, am na léeg-léeg mbugal yi ko sun boon di gaaw fii ci na du ko ndigee ëllëg tadu bokkal la koy la ko la la la koy dégg ëllëg mu ne nag kii jëf jëf bàkkaar jëf kotu bàkkaar bi saa bu ko mbégte dikkalee ak bànneex maanaam saa saa bu ko saa bu ko aw métti dalee saa bu ko dara gaaree ci métti àdduna yi ndax ne mbugal la mu ko yàlla tàmbalee fii lu mu gis ci luy neex ci bàkkan nag bu mu ko jàppee xéewal waaye na xam ne sunu boroom a koy sunu boroom a koy sunu boroom a koy jaay rek ngir bëgg koo jag ko bëggoon koo mën a mbugal ci safaaram nag bu dee toppkat yàlla bu dee su dee toppkat yàlla moom eh, lu mu gis ci luy niru ay ay tawata ki eh, yenn gàllankoor adduna yi suba ab nattu la sunu saa bu nattoo ab jullit am na lu mu na ma ci moom bëgg na ko yokkal daraja mbaa bëgg ko yëgali bakkaaram te jëfut lu ko ko may mu teg ko nattu ba ngir mu wutu loola lu gis ci luy niru xéewal nag soobaa lay door tudd xéewal topp ko topp ko te yàlla bi sellal lu gis ci xéewal xéewal la tudd waaye bu dee mooy ko te yàlla nag du xéewal waaye njaayreelu suñu borom la mu ne ko nag bul xeeb benn bàkkaar lu tuuti tuuti bi agsi di taaati laa taxqar abad dan bana walaw qalla fa baadir li samat bi tawbati minhu nasuuxin wa ila takfirihi mithla salaatika ala nabiyina salla wa sallama al ahad alayhi wal ali wal ashaabi abad wa ka tahajjudi layaali bil xushuu wa xidmatin li kulli saalihin mutia wa ka mujalasatihim lil baari subhanahu wa kasrati istigfaari laa si laa siyama sayiduhu sayiduhu ladi ishtahar wa kathratu tasbihi aydan wal fikar mu ne kon nag na lu bàkkaar tuuti tuuti bu ko xeeb gaawal tuubal ko yàlla tuub gu sell waaye boo ci yam da nga koy takfiir takfiir mooy jëf jëf ju baax jo maanaam fa nga defee bàkkaar ba dem fa jëfe jëf jëf ju baax su ko defee dana ko far la koy fare nag yu bari la bokk na ca lu mel ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay salaatu ala nabi dana far ay bakkaar soo tubee ba noppi nga def bari ay salaatu ala nabi dana ko far ba mel lu fu mës a nekk lu mel itam tahajjudu layaali mooy di jóg di taxaw guddi di la tahajjud soo bàyyi ba nit ñépp nelaw nga jàpp ba sell lal sab der jàkkaarlu sa borom di ko jàmm waaye jaamu gaa nag nag xushu muy ragal yàlla ak toroxlu loolu daan far bàkkaar bokk bokk na ci liy far bàkkaar it liggéeyal waaju baax liggéeyal waaju baax ku sell kuy toppkatu yàlla nga dem liggéeyal ko liggéey boobu dana far bàkkaar ñaq koy génn ci yow ca liggéey ba nga liggéeyal waaju baax day génne waale say bàkkaar ni ko doon toogaale ñoom toogaale gaa yu baax yi toog ci seeni jotaay ba tey bokk na ci liy far bàkkaar ni ko doon bari istigfaar bari looy jéggalu yàlla rawatee na sang ba sangub jégglu yi am na jégglu goo xam ne yon yonent bi saasu nee na mooy sangub jégglu yëpp mboolem jégglu yi googa mooy seen sang mooy lan allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udhu bika min bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lii fa innahu laa yaghfiru dhunuba illaa ant sa jégglu googu yendu saa su neen mooy mbo sangu mboolem jégglu yi soo ko bëggee am na soo demee ci taw eh, ci ci aw waa fii tax fii tax mi astaghfirullah mooy xes xes Sëriñ Tuubaa googu tudd tuxfatul fii tax fii tax mi astaghfirullah jégglu gi maa nga ca yow mi yow mi ko bëgg am wala nga bëgg ko mokkal soo demee ci tuxfatul awaar da nga ko ci fekk incha allah ca tarjumaan ja nga di ko def lu baree baree bari tam dana far bakkaar saa boo ko jàngee benn yoon képp rek suñu borom far la see bakkaar kon nag di ko baril loo ko jàng am na solo lool ni ko doon baril looy sàbbaal sàbbaal yàlla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Eh, ni ko mu ne ni ko noonu julleem gi julli jullik tasbix jullik sabaal salaatu tasbix moom itam lu am solo la saa boo ko defee sunu borom say bakkaar lu mu bari bari bari bari sun borom la ko jéggal salaatu tasbix nag jullik ñeenti rakkaa lay doon mën naa doon guddi mën naa doon bëccëg wax wépp waxtu wu dagan naa fi li mënees na ko caa def ñeenti rakkaa soo kàbbaree nga jàng faatiha teg caw saar teg ca subhaanallaahi walhamdulillaahi wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom ci taxawaay bi doora rukkoo soo rukkoo yi nga wax ko fukki yoon siggi ci rukon bi taxaw wax ko fukki yoon dem rot sujjóot wax ko ci sujjóot bi fukki yoon siggi toog wax ko fukki yoon sujjóot sujjóotu ñaareel wax ko fukki yoon siggiwaat toog wax ko fukki yoon dooru jugaat jàngat faatiha ko saar tegaat ci baat yi fukki yoon ak juróom kon taxawaay bu ne fukki yoon ak juróom la yeneen ponk yi bu ci nekk fukki yoon la muy subhaanallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar taxawaay bu nekk naa gannaaw Faatiha ko saar nga wax fukki yoon ak juróom yeneen ponk yëpp bu ci nekk fukki yoon soo sujjóot sujjóot ñaar da ngay sikki togg wax ko ba noppi dooru jugaat taxaw bu ca ñaareelu rakka ba boo sikkee togg nga wax ko fukki yoon door a taaya benn sëlmal lay doon boo sëlmalee am na ñaan guñ ci ñaan ñaan xaw naa gudd duñ ko man a indi fii waaye ku ko yitte woo rek eh, eh, soo demee ci mas naa ko bind joxoon ko mel sëñ Mahamadan Sëy mi ci jumaa ji nga xam ne ku ko yittee xëy na boo demee foofu yombul dana ko am moom ngay jàng ci taay jumbu ji mooy taayoo nag ngay ñaan ko ngay jàng door a sëlmal loolu salaasa newoon na ku ko ma ku man di ko def bis bu set benn yoon na koy def ku ko mënut na def ajjuma ju ne mu def ko benn yoon su ko mënul weer wu ne benn yoon su ko mënul at mu nekk benn yoon su ko mënul na na ko def benn yoon ci dundam waaye saa boo ko defee say bàkkaar lum rëy rëy rëy rëy lum bari bari bari bari suñu boom jéggal na la ko kon am na solo kon salaatu bi itam dafay far ay bakkaar ni ko doon xalam yàlla toog ci benn baral sa sa sa di xalam ci sa borom ma màggam gi tedd ngaam ji xaralam gi di xalaat ci suñu borom ci ci loolu xalam yooyu ba tey day day far bàkkaar kon saa boo jëfee bakkaar bu tukkoon na bi nanga nga def benn ci yooyu ngir fare ko bakkaar ba julli juróom sax dafay far bakkaar julli juróom saxal ko ndax salaa salaam woon na képp ku julli maanaam ku saxal julli juróom diggante julli gu nekk ak morom ja la fa la fa dox ci bàkkaar sunu da koy far soo jullee suba tisbaar jot nga julli la dalee ci suba ba tisbaar dañ koy far ci bàkkaar tàkkusaan nga julli la dalee tisbaar ba tàkkusaan dañ koy far eh, teg ca nag diggante koor ak morom ja it maanaam su war ramadaan yooyu nga war ko ba mu jeex des nga war ko ba mu jeex diggante ñaar ramadaan def la fa dox ci bàkkaar dañ ko jéggale kon julli juróom ya dafay far ay bàkkaar alxuraan sax alxuraan sax wax na ko innal xasanaati yudhibna sayyiaati alxasanaat fii julli juróom lay tekki as at fii bakkaar yu ndaw yi lay teg kon jéggal googu bakkaar yu ndaw yee tax ñuy wax lim na dañuy jéggale diggante ñaari julli yi bakkaar yi fa dox diggante koor morom ji bakkaar yu ndaw ya la ñuy wax waaye bakkaar bu mag mu tuub rek ci la ko sunu Boroom di jéggale bu ko soobee ak la yonent bi saa sama waxoon ka ko ka ko eh, ka ko laajoon ab dénk mu ne ko na ra na rafetal say jikko ba mu ko ne dolli ma mu ne ko atbi'i sayyi'atal xasanata mooy saa boo jëfee bàkkaar ba ba tub ko noppi nanga ca tofal lu rafet kon dana ko far mooy yi ma doon leeral léegi boo jëfee bàkkaar yaa ngi cee teg salaatu ala nabi wala wala wala julli guddi wala liggéey waaju baax walla toogaal ak ñoom wala bari looy looy jéglu yàlla wala euh, ni ko doon bari looy sàbbaal ak yu mel noonu ña na kon saa boo jëfee bakkaar ba tub ko nang ci toofal lu rafet kon dana ko far at bi is sayyi'atal hasanata tamhuha julli googu la Sëriñ Tuubaa ne laa siyama salaatuhu wa hiya ajal barakatan kama rawaahu man naqal muy salaatu tasbih kon kon yooyu yëpp ay jëflu yu baax yoon dafay jaadu dafay yàlla ci ab jullit bu bakkaaru mu di ko fare ay bakkaaram gannaaw bu ko tuubee ba noppi nag day tuub doo def loolu suñ moom da ngay gis lu bare bare bare bare ci alxuraan su tuddee ay mbugal yu mu waajale ay nit wax leen den mbugale ba àggal bu su suy daan day wax ne ba mu des nag ña tuub gannaaw loola te rafetal illa alladina taabu min ba min di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurun rahim ba mu des ña tuub gannaaw loola te yéwénal ndax yàlla ku bari yërmande la ku mën a jéggale la illa alladina taabu wa aslahu wa atasamu billahi wa axlasu diinahum lillah ba mu des rek ña tuub te yéwénal te ngoy ci yàlla te sellal seen diine ngir jëm yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa it daa daa ko dénkaan lu bari daa dénkaan lu bare bare bari ak tuub am na fu mu wax ne wa alaykum bi an tatuubu wa tuslixu baynakum wa bayna man jaawartum min al wuzaraai wal wulaati wal ashab xaytu kuntum maa ngi leen dénk ngeen di tuub te yéwénal seeni diggante seen diggante ñi ngeen dëkkal rawati nag ñi nga xam ne ay kàngam lañu ni ki ministre yeeg député yeeg dégg nga préfet yeeg gouverneur yeeg ak seeni àndandoo mu ne seen diggante ñi ngeen dëkkal seen diggante ak état ak ñi ngeen di àndal teg ci ne fa inna shikaayata fa inna shikaayata naasi iyaakum fi kulli naaxiyatin tawalladat min adami tawba wal xaasilu anna tawbata huwa huwa jaali huwa aljaalibu lil masarraat wa daafi ankum al madarraat fa laazimu tawbata yuxawil mawlaakum xaalakum ila axsani al axwaal wa innama wassaytukum hada baadan jiraari ala jamiihi wala yunabbiuka mithlu xabiir li yuballiga shahidu minkum al-ghaib daa wax ne njàmbatal nit ñi ci yéen njàmbat yeneen nit ñi di jàmbat ci ci ci ci ci wet gu nekk mu ngi juddoori ci ñàkk tuub daan li wér daal mooy tuub mooy liy ñot di mboolem mbégte yi waaye moo leen di moo leen di jañal mboolem lor yi kon na ngeen takkook tuub kon su ma su daan soppi seen situation yóbbu ko ci ngeen jaar rafet si eh, eh, si maanaam daal yi gën a rafet mooy lii na dama leen ko dénk gannaaw ba ma ci jaaree ba jàll ba xam la ca ne te su ma neew na eh, nettali nettali ku fekkee bokkut ak looy dégg rek walla yu nabbiuka misul xabiir maanaam kii dañ kumpa mbir ba xam la ca nekk wax la ko du bokkut ak loo dégg rek ci ca mbedd ma daan lii nag ku ko fekke bu fi jógee na ko jot li ku ko fekkewut loola waxoon ci jotaay boobu moom Sëriñ kon li nga nga dégg ci lu bari ñu naan bàkkaar bu mag bàkkaar bu mag léegi lan mooy bàkkaar bu mag eh, seeni lim bàkkaar yu mag yi ñaar fukk la yoo xam ne bu ci nekk bàkkaar bu mag la bàkkaar bu mag nag mooy li nga xam ne ku ko jëf te bu ko mën na ko tàbbal sawara waaye su ko tuubee na sunu bopp jéggal ko waaye ci tuub lañ ko jéggalee lool Sëñ leer na ko indi ko ci Munawwiru Suduur lim ci ñaar fukk yëpp wax ne kabaa'irul aasiina ishriina badat amman nuquluhum saxiixatun hadat nee na bàkkaari moykati yàlla yu mag yi bàkkaar yu mag yi moykati yàlla yi ñaar fukk la yoo xam ne fiñ ko toxale fu fu fu wóor wóor la mu ne am na ci ñeenti bàkkaar yoo xam ne xol moo ko jagoo ñeenti bakkaar yoo xam ne xol moo ko jagoo te ñeent yëpp bàkkaar yu mag la oj bun te mooy ba ci njëkk mooy aaw aaw mooy naw jëf mooy jëf ba noppi di ko naw gis ko daal maanaam gis sa bopp ci jëf ja day yàq jëf ja bàkkaar bu mag la it ni ko noonu rëy rëy mooy gis sa bopp jàpp na kenn nga walla yaa tol yaa tol nangam déedéet loolu ba tey bàkkaar bu mag la ni ko noonu kiñaan bu am wala képp ku yàlla defalal xéewal nga yéene ko mu ñàkk xéewal ga mbaa nga yéene ko musiba dal ko loolu kiñaan la mooy dafay yàq jëf bàkkaar bu mag la ni ko noonu njistal mooy jëf ju baax joo xam ne yàlla taxul waaye nit ñi gis ko tax yow daal fu ñu la fekk ci mbooloo ne tagg la nga daal génn xaalis bu bari maya waaye ku la fekkoon sa biir néeg yaa ngi moom képp mu mu mu ñaan la sàkku ndimbal nga nga sàkk loo ko lay waaye bu dee ci digg mbooloo mu faaw nga génn joxe ko loolu loolu gisal la wala wala daal julli yaa ngi yaa ngi war lu bari waaye bëgg foo toog nettali ko wala yaa ngi julli lu bari yaa ngi julli guddi waaye foo toog nettali ko ndax daal lépp daal bëgg nit ñi gis ko wala wala naw la teg la fenn loolu mooy gisal baaxut dafa yàq jëf ci bàkkaar yu mag la bokk. ñeent yooyu xol moo koy fas xol mooy fas aaw mooy fas ak rëy mooy fas kiñaan mooy fas gisal loolu Sëriñ Tuubaa ne ujbun wa kibrun xasadun maariya muxtasatun bil qalbi daalan fadria mooy ñeente bàkkaar yoo xam ne xol lañ lañ ko jagleel mu ne itam am na juróom-ñetti bàkkaar yoo xam ne asafala ñaar ñaari bàkkaar yoo xam ne loxo moo ko jagoo loxo am na ñaari bàkkaar yoo xam ne loxo koy def muy rey nit ak sàcc rey nit loxo koy def sàcc loxo koy def mu ne kon ñaari bàkkaar yooyu loxo lañ ko jagleel loolu ci lu ci nekk bàkkaar bu mag la wa bil yadayni l xatlu mithlu sariqa xu saskuri ladi kafaakal fasaqa am ci juróom-ñetti bàkkaar yoo xam ne nag gémmiñ lañ ko jagleel gémmiñ gémmiñ jagoon na juróom-ñetti bàkkaar yoo xam ne ñoo koy def gémmiñ ñi koy def ba njëkk mooy jëw jëw tudd nit fu mu nekkul wax ci moom loo ne soo ko déggoon du ko neex ràmbaaj gi mu koy def mooy jaxase ay nit nit ñu juboon neexoo loolu naqari la nga fexe ba jaxase leen ba dootu njaaroo ab taal lekk riba alal joo xam ne léewut lool ci bakkaar yi loxo bakkaar yi gi di def la bokk naan sàngara dafa xaram gi mi ñu koy def lekk alali jirim dafa xaram gi mi ñu koy def giñ aw fen wóor na la aw fen la ba doom nga giñ ko bàkkaar li gi mi ñu koy def euh, ni ko noon seere aw fen seere aw fen xam ne aw seere ba ni ko nga seere ko mooy juróom-ñetteelu bàkkaar yi nga xam ne gémmiñ moo koy def loolu la Sëñ Tuubaa wax ne wa ghibatun namimatun aklu riba xussat bi fammin mithlu xamrin shuriba ka akli amwalil yatimi wal yamin ayil ghamusi wa hiya haa'un la amin shahadatu zuuri wa qadful muhsanat shahadatu zuuri bi waxoon léegi mooy seere aw fen mooy juróom-ñaareel juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi nag mooy xas jigéen ju sangewu jigéen ju boroom borom kër nga tuumaal ko njaalo ma juróom-ñetteel ba shahaadatu zuuri wa xadful muxsanaat thaaminatul kabairil mustahjanaat kon moo juróom-ñetti bakkaar yi nga xam ne gémmiñ moo koy def bu ci nekk bakkaar bu mag la bu ñu war a tuub la tuub gu la am ci ñaari bakkaar yoo xam ne nag pëy moo koy def pëy moo ko jagoo muy njaalo suñ ne njaalo mooy diggante góor ak jigéen góor gu séq ak jigéen ju ko dëgganul ak nag liwaat mooy ngóor jigéen mooy ñaari góor yu séq yooyu ñaari bàkkaar yu mag pëy moo koy def loolu la Sëñ di wax ne zinan liwaatun bi furujihim faxat xussa fa man maale ilayhima saxat fa haadihi yawun min alkabairi daxa fama ma bi'tahu bi ba'iri fala fala tamil ila layadin minha wa jumlata asraat fii ko sunha nee na njaalo ak ak ngóor jigéen ci seeni seeni pay lañ ko jagleel ku jàng jëm ci yooy na dana dano mu ne yii ma limagoon nag fukk la ak juróom benn ci bàkkaar yu mag yi na nga ko bàyyi ndax doo gis mukk ku leen bàyyi di perte mu ne bul jàng jëm ci lenn ci ñoom waaye mboolem mbóot yépp na nanga ko ñoŋal ci sa biir mu am nag ñeente bàkkaar yoo xam ne moom yaram yépp a koy def yaram yépp a koy def xam nga fukk juróom benn la limoon soo ci tegee ñeent yooyu nag muy ñaar fukk yi mu waxoon yi matale yaram yépp nag mooy dogoog say waajur dogoog sa ñaari waajur walla mooy leen loolu jëmm jëpp koy def daw ci ab xare xareb lislaam eh, lislaam julli ñi dañuy xare gi yéefar yi nga ne waqi daw loola bàkkaar bu rëy la bàkk ci bàkkaar yu mag yi la bokk ni ko noonu ba ko ñetteel mooy yàq alali jullit yàq alali jullit yaram yépp a koy def ñeenteel mooy bàyyi julli bàyyi julli yaram yëpp koy def loolu la Sëriñ Tuubaa di wax ne amma allati ammat jamii al fa arbaun xaawil ajalla qismi xuquuq walidayni wal min zaxfi man jumlatuhum shiraaru thalithuha ifsaadu maalil muslimi raabiuha tarku salaati faalami watruk sabilal aghbiya il mu'tadin wasu sabil sabil azkiya il muhtadin nee na nga bàyyi yoonu ñu bew ñi tey jalgatikat yi te sóobu yoonu ñu ñaw ñi tey ñu jub ñi kon loolu mooy ñaar fukki bàkkaar yu mag yi nga xam ne saa bu ne bàkkaar bu mag rek benn ci yooyu lañ ci jublu nit nag yàlla da koy binde fàtte baaraana bu muy fàttee jëf lu bàkkaar te fàtte fàtte ko waral fàtte googu tàbbal ko ci jëf ak mooy yàlla waaye saa bu ko rek daa war nit moom dafa baaxoo fàtte am na shaa'ir bu waxoon ne wa maa summiya insaanu illa li nasiyihi wala al qalbu annahu yataqallabu ene nit li tax ñu tuddee ko insaan mooy ak mën a fàtteem ndax dafa war ne kon insaan mi ngi jóge ci baatu nisyaan fàtte waa kon wala ak fàtte nisyaan mooy ak fàtte mu ne nit na dara tax ñu tuddee ko insaan a fàtteem rek mu ne xoolit dara tax ñu tuddee ko alqalbu lu dul ne taqallub bi muy def mooy wëlbatiku bi muy wëlbatiku di bëgg di bañ di mer di bëgg ak yu mel noonu nga xam day soppi ko waxtu nekk ak di ragal ak di féex loolu soppi ko googu moo tax ñu loolu la ñu tudde taqallub kon xal bu mu ngi ci baatu taqallub wa ma summiya al illa li nafsihi illa annahu yataqallabu waaye baraana bu balaa wàccee ngir fàttali doomu aadama su ma lee lam wàcce balaa lam jul mooy fàttali doomu aadama yi ngir ñu delluwaat ci moom te xam ngeen fii nii ñu ngi ci jamonoy balaa jamonoy mbas suñu borom léeg la dana ko def wàcce mbas wala wàcce balaa lañ bi lu may fàttali jaam ñi wane ne moom rek a yàlla ngir ñëpp delluwaat tuub delluwaat ci moom moo tax wax ci alxuraan ne afalaa yarawna annahum yuftanoon fi kulli amin marratan aw marratayni summa laa yatuubuuna wala hum yadakkaruun xanaa nit ñi gisuñu ne at mu nekk dinaa leen ci fitnaal benn yoon wala ñaari yoon lépp ngir bëgg ñu tuub bëgg ñu bëgg ñu fàttali ko waaye du tax ñu tuub du tax ñu fàttali ko dëgër bopp la ne xanaa gisuñu ne at mu nekk dinaa leen fitnaal benn wala ñaari yoon te tax ñu fàttaliku te du tax itam ñu ñu ñu ñu tuub summa laa yatuubuun wala hum yadakkaruun nit dafa dëgër bopp del waxaat ne wa anibu ilaa rabbikum aslimu la min qabli an yaatiyakum al-'adaabu thumma laa tunsaruun na ngeen dellu ci seen borom te jébb te jébblu ci moom mooy mooy wommatu jëm ci moom balaa mbugalum yàlla di ñëw su mbugalum xase yàlla xase ñëw kat su ngeen ñaanee ndimbalit suñu bon du leen dimbale kon lu ma a bàyyi xel la saa bu aadama tuubee nag te tuub ga sell yàlla jégal ko ngir dama wax ne wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi yàlla dana nangul ak ak tuub ay jaamam wa huwa taw yaqbalu tawbata an ibadihi yàlla daa nangul ak ay jaamam seenu tuub maanaam suñ tuubi tuub ga sell suñu ma da koy nangu ak li ma wax ne wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande lépp xaj na ca su doon sama yërmande lépp xaj na ca wax ne nag yàkkante goo yàkkamte ak gaawtu ci seytaane la bàyyi ko ba des nag juróom am na nag juróomi barab yoo xam ne yàkkante fa ak gaawantoo loolu moom ci yàlla la bàyyi ko te te sax gaawantu googu sunna la juróom juróom juróom yooyu juróom yi nga xam ne gaawtoo ko moom ci sunna sunna la te ci yàlla la bàyyi ko mooy ko faatu luñ ko gën a gaaw a denc moo ci gën nit ko faatu luñ ko gën a gaaw a denc rek moo ci gën jigéen joo xam ne mat na jigéen mata sëy luñ ko gën a gaaw may borom kër moo ci gën bor bor luñ ko gën a gaaw a fay moo ci gën ak may yàlla luñ ko gën a gaaw a tuub moo ci gën gan guy door ak si loo ko loo ko gën a teel a jox aw ñam moo ci gën jëleen ci abi darrin radiallahu anhu mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna li kulli daa in dawa wa dawa dunubi al istigfaar neen dégg naa ci yonent bi saasam Abu Dar ko wax dégg naa ci ne jàngoro ju ne am na saafara am na garab garabu mën a ja bàkkaar nag mooy jéggalu yàlla muy tuub jéggalu yàlla man képpay saafara bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne yaa ayyuhan naas tuubu ilallaahi fa inni atuubu fil yawmi mi'ata marra moom laa doon junj ci gannaaw ne yonent saa sam moo gën ñëpp te daa saxoon tuub dafa ne yéen nit ñi dee leen tuub jëm ci yàlla ndax man day bis bu ne dina tuub téeméeri yoon téeméeri yoon jubluwu ci lim bi waaye bari gi la ci jublu xam nga léeg-léeg nga dégg eh, ni naan moronjam maa la ëpp doole téeméer yoon wala maa la ëpp doole fukki yoon jublu jublu ca lim ba waaye bari ga la ci jub rek wane ne bari na rek wala boo wax naa la ko téeméeri yoon xam ku ne xam na wax wax wax naa la ko téeméeri yoon ne xam na wax ko ko téeméeri yoon waaye li jublu may wax naa la ko lu bari rek fii ba tey mi at marra ji loolu lay tekk fii maanaam nekkul jëmmi lim bi waaye bari gi la ci jublu dee jëm ci yàlla ndax man de bis na daan téeméeri yoon del waxaat moom yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne man lam yastaxfirillaahi fi kulli yawmin marratayni faqad zalama nafsah ku dul tuubal yàlla bis bis bis ne ñaari yoon ku dul jéggal yàlla bis ne ñaari yoon moo tooñ boppam ku tooñ boppam la amoon na ci banu Israil ndaw loo xam ne dafa jaamu yàlla ñaar fukki at mooy yàlla ñaar fukki at ñaar fukki at yi daal moom yu njëkk yàlla moom ku dañ ci doon sellal di def lu baax di jaamu yàlla di sellalal ak dundam eh, di jaamu yàlla jaam gu rafet ba yàgg mel ne daal seytaan da ko ëpp doole mu yóbbu ko ci mooy yàlla muy mooy yàlla ba am ñaar ba am ci ñaar fukki at benn bi su mu jàkkaarloog seetu di xool boppam daa gis ci sikki moom ay kawar yu bi jaaw mu tiit ca loola daldi jàpp ba seet wéet na ni ilaahi ataatuka ishriina sana thumma asaytuka ishriina sana fa ida rajatu ilayka ataqbiluni fa samia qailan yaqul ahbabtana fa ahbabnaak wa taraktana fa taraknaak wa asaytana fa amhalnaaka fa isaa rajaata ilaynaa qabilnaaka dafay tàllal tàll loxoom yàlla ne ko yow sun borom man day topp naa la ñaar fukki at mooy naa lay ñaar fukki at moo ndax su ma delsee ci yow danga ma nangul a taqbalu nii ma ndax ma ndax danga ma nangul su ma delsee ci yow su ma ndax danga ma nangul mu dégg kàddu guy wax ne yow daal danga noo soppoon nu sopp la nga dem ba yàgg nga nga banu nu nu bala nga may yàlla ñu ñu ñu ñu di la teeylu rek di la néegi bis soo delsee ci nun nag tuub gu sell la ko kon lañ ci dégg mooy kon bàkkaar lu bari bari lu mu réy réy saa boo la ko wax nañ ni itam ba euh, euh, Adama alayhi mii sunu maam aadama mii maam yi nit ñëpp dafa waxoon ne inna allaha aata ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam arbaa karamatin ma aataniha sidna adama nee na sun boom day jox na xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ñeenti teraanga yoo xam ne man mii seen maam sax uma ko defaluma ko waxut yonent bi de aw xeetam la wax daan na al ula anna qabula tawbati fi makka wa ummata muhammadin sallallahu alayhi yatubun fi kulli makan fa yataqabbalu llahu tawbatahum tawbatahum neen ba ci njëkk mooy man de ba ma moye yàlla laataa ma sama borom sama borom di jégal damaa dem ba makka ma tuube ko foofu suñ doon doon ma jégal te xeetu muhammad nag dañuy tuub barab buñ mën a doon suñ tuubee te saa buñ tuubee fuñ mën a tuubee yàlla jégal leen loolu uma ko kon wa thaniya anni kuntu laabisan falamma asaytu ja'alani uryana wa ummata muhammadin saa sam ya'suna uryanan fa fa yalbasuhumullahu ta'ala ne man de ba muy mooy yàlla dama koddaayu woon dama solu woon ba mu moyee yàlla sunu borom rafetal ma tàggale ma ak yére ya xeetu Muhammad nag dañuy dañuy dañuy moy yàlla ci rafle mën a fi sunu yow sunu borom wodd leen wa thalitha anni lamma asaytu farraqa bayni wa bayna wa bayna imraati wa ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaxsunullah wala yufarriqu baynahum wa bayna azwajihim ba ko ñetteel mooy ba ma moyee yàlla sama borom dafa tàggalee sama soxna xeetu muhammad dañuy moy yàlla te suñu borom den du leen tàggale seeni soxna war rabi'atu anni asaytu fil janna fa axrajani minha wa ummata muhammad saa sum yaasuna allaha xaarijal janna fa yadxulunaha ida taabu man de ajana laa nekkoon ba ma mooy yàlla yàlla génne ma ajana xeetu muhammad dañuy tuub ci bitib ajana ba nag suñ tuubee yàlla tàbbalin aljanna mu ne kon loolu ñeenti teraanga la yoo xam suñu moom da ko jox xeetu yéen bi sax te man mii seen maam sax uma ko yàlla defaluma ko xukamaa uy dañuy wax ne man rusiqa arbaan lam yuxram arbaan man rusiqa man rusiqa du'a lam yuxramil ijaaba li xawli taala ad'uni astajib lakum dañuy wax ne kuñ kuñ kuñ kuñ wërsëgal ñent xañeefu la ñent képp ko yàlla wërsëgal ñent rek xañu la ñent kuñ wërsëgal ñaan ku nekk xañeefu la nanguk yàlla sun bam nangul la ndax sun bam moo ne ñaan leen ma may leen wa man rusiqa al istixfaar lam yuxramil maxfira ci xawli taala innahu kaana xaffaara képp ku ñu wërsëgale jéggalu yàlla rek xañeefu la ak njéggalam ndax suñu borom moo ne yàlla ab jéggalaakoon la wa man rusiqa shukr lam yuxramil mazid li xawli taala la in shakartum la azidannakum kuñ wërsëgale cant ku nekk xañeefu la ndollan ndax suñu boobaa moo ne bu ngeen bu ngeen sante bu ngeen sante ma dolli taw wa man rusixa tawba lam yuxrimil qabul li xawli taala wa huwa lazi yaqbalu tawba an ibadi wa yafu ani sayiat kuñ wërsëgale tuub ku nekk xañeefu la ak nangu ndax li suñu boobaa wax ne yàlla mooy nangul ay jaamum seenu tuub di leen jéggal seen ñawteef kon saa bu bi dëggalee ci ak tuubam dëggal ko day feeñ ci léppam ngir li Abdullah ibn Mas'ud solo radiyallahu anhu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne atadruuna mani taa'ib qulnaa Allahu wa rasuluhu a'lam qaala sallallahu wa sallam man taaba wa lam yata'allam al-'ilma falaysa bi taa'ib wa man taaba wa lam yazid fil ibaada falaysa bi taa'ib wa man taaba walam yurdil xusama falaysa bi taa'ib wa man taaba walam yuxayyir libaasahu wa ziinatahu falaysa bi taa'ib wa man taaba walam yubaddil asxaabahu falaysa bi taa'ib wa man taaba walam yuxayyir xuluqahu falaysa bi taa'ib wa man taaba walam yatuy firaashahu wa bisaatahu falaysa bi taa'ib wa man taaba lam yatasaddaq ay lam yatasaddaq bi fadli ma ma fi yadihi fa laysa bi tayyib fa in istabaani min al abdi haati al qisaal fa huwa taa'ibun haqqan Abdullah ibn Mas'ud dafa solo wax ci wax ni yonent saasam nee na ndax xam ngeen kan mooy aji tuub dëgg-dëgg ñu ne ko yàlla ko yonentam rekk ñoo ko xam mu ne képp ku ne tuub naa te demul xam lu ji diineem kooku tuubut képp ku ne tuub naa te ak jaamu yàllam dollikut kooku tuubut képp ku ne tuub naa te gërëm loowut ay ay ay adversaire am ma demut ci ñamu xuloo wàll ñëpp mu jéglu leen yàlla su dee ma tooñoon kooku ba tey tuubut ku tuub te soppiwul ko soppiwul ko daayam mooy bàyyiwul yu bon yam daa def def lu baax nee na kooku tuubut ku ne tuub naa te soppilu ay àndoom maanaam soppilu àndoom wut ànd àndoo yu baax kooku ba tey dugg tuub tuubut képp ku ne tuub naa te soppiwul jikkoom du ko tuub képp ku ne tuub naa te lemut lemut eh, ab lalam dem ca ay ab daram nee na kooku tuubut ku ne tuum naat te sarxewut te du sarxe kooku tuubut kon nag saa bu fekkente ne jaam bi jikko yi daje na ci moom rek gannaaw mu tubee wax ne kii mooy kii tuub dëgg dëgg dëgg ndax tuub ga jeexital na ci moom ndax kon tuub dafay jeexital ci ci ci ci léppi jaam bi jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ita xaalal abdu anni axaafu min an naar walam yakfi an ani dunub walam yukaf ani dunub fa huwa kaddaabun inda allahi gayru taaib wa ida xaala al abdu inni ashtaaqu ila al janna walam yacmal laha fa huwa kaddaab gayru taaib wa ida qaala al abdu inni uxibu nabiya sallallahu alayhi wa sallam min gayri itibaaci sunnati fa huwa kaddaabun gayru taaib wa ida qaala al abdu inni ashtaqu ila muanaqati alxuur walam yuqaddim laha mahran fa huwa kadabun gayru taib fa inna taiba xabibullahi wa xabibu rasulillahi salallahu alai wa sallam kama qaala allahu taala inna allaha yuxibu tawabin wa yuxibu almutatahirin salaa salaam nee na jël nañ ci yontu saa samba tey wax ne saa bu jaam bi ne man de damaa ragal sawara te jëful lu koy fegal sawara waxul dëgg tuubut su jaam bi ne dama bëgg aljanna man ko dama bëgg a tàbbi aljanna te jëful lu ko yóbbu àjjana waxul dëgg tuubut su jaam bi ne dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jéemut a topp sunnaam dëgg tuubut su jaam bi ne ko dama bëgg akolaatanteeg xóorul ayn ya te joxewul seenuk can seenuk can nag mooy jaamu yàlla nee na boobaa waxul dëgg tuubut nee na aji dëgg mooy soppeb yàlla tey soppeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni suñ boom waxe woon ne yàlla kat bëgg na lool ñii tuub waaye bëgg na lool it ñii làpp wa fil xadis jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa xaala axtatu ya rasulallah famal xiila fa xaala sallallahu alayhi wa sallam at tawbatu fa inna tawbata taxzilul xuuba dafa am waa ji ñëw ci yonent bi sax ne ko man day dama def njuumte yaa rasulallah ana lu cay pexe mu ne xanaa nga tuub rek ndax tuub dafay raxas bàkkaar ba mu set wecc Sëriñ Tuubaa ne woon na man araada an laa yadia shay'un min amali min amalihi fal yuqaddimi niyata qabla kulli amalin wa man araada an yurdiya rabbahu fala yuti ahadan fi masiyatihi wa man araada an laa yaftadixa fi dunia wal axira falyatruk al israara wa man araada al qurba min allahi taala tabaraka wa taala falyatadabbar fi ayatihi wa man araada an laa yamuuta qalbuhu falyajtanib mujalasata al musirrina wa man araada xayaata al qalb fala yufaariqa al ulama al amilin wa man araada an yufaariqa al danba falyulaazim tawbata wa man araada an laa yox an laa yoxsiyahu an laa yoxsihi llaahu falyulaazim zikra wa man araada an yataannasa billaahi falyulaazim tilaawata wa man araada an yufaariqa uyuba nafsihi falyulaazim salaata ala nabi sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Tuubaa bañ dara di sànku ci ay jëfam nay jiital yéene njëkk jëpp jëf ku bëgg gërëm loo boroomam bu nu topp kenn ceg mooy yàllam ku bañ gàcceeg àdduna goog alaxira na bàyyee nuur ci bakkaar ku bëgg a jege yàlla tabaaraka wa taala nay seetantal nay jàng di ko seetantal ku bañ ab xoolam dee na moytoo toogaale ak ñi nga xam dañuy nuur ci bakkaar ku bëgg ab xolam dund ba mu teqali ko boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ku bëgg a teqali ko bakkaar na taqoo tuub ku bañ yàlla gàcceel ko nay taxoog tudd yàlla ku bëgg a wetli ko yàlla nay taxoog jàng alxuraan ku bëgg a teqali ko ay bi boppam na taxoo julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam nga gisee kon loolu tuub bari na ci lool mu tekki na wa man araada an la yaqrab an la yaqraba minhu shaytaan fal yajma bayna tilaawati alquran wa salaat ala nabi sallallahu alayhi wa wa man araada ajra siyaami wa huwa muftirun fal yumsik lisaanuhu an kulli ma la faidata fii képp ku bañ saytaan jege ko na boole jàng alxuraan ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ku bëgg yoolub koor te wóorut ku bëgg yoolub koor te wóorut nda téyewu làmmiñam ci lépp lu ko amul njariñ loolu la wax ci tënk ci bayit ne ñetti bayit ñaari bayit sax wal ci yéeni yéeni joju yéene tuub daa wax ne wal yan wi batan la da tataxuri bi fii kulli udwin min dunubin yatxuri wa kullu man lam yaxduril xalba la daa tahaaritin fala yusaffil xalada nee na saa booy jàpp nang ak tuub mooy cër cër booy raxas nang ci yéene ak tuub soo ci yéene ak tuub bakkaar bi day ànd ndox ma wàccale sooy raxas loxo yi nang ci yéene tuub bépp bakkaar booy jëf ci loxo yi sooy galaxndiku nga tuub ci be nga julli ci tuub be nga yéene ci tuub bépp bàkkaar bu boo def ci sa gimiñ ba tér yi mat mu ne kon na nga yéene tuub ci booy jàpp ak booy sangu yëpp booy sangu farata it na nga ko ci yéene ci bépp cër nee na kon day da nga set ci bàkkaar ne képp ku dul teewal ab xolam nag ci eh, ak ak laabam nee na kooku du mën a sellal ak ak saxam ëllëg waxaat fenn in wi la dal wudu i tawbatan ila rabbika tax wi afohumal ila neen na nga yéene ci sam njàpp ak tuub ci sa jëm ci sa borom kon de da nga làq ak njéggalam boole ko xéewal ronda ci xadis ayuma rajul xaama ila wuduihi yuridu salaata summa gasala kaffayhi nasalat xati'aatu min kaffayhi ma awali xataratin xatara minhu fi idaa gasala wajhahu

bàkkaar yi ñu jëf dafay dafay ànd ak ndox ga njëkk a toq rotaale su raxasee xar kanamam sëlmu moo leen ñaawteef yi mu déggoon ci noppam mbaa mu gis ko ci bëtam day ànd ak ndox ma wàccaale saa bu raxasee ñaar loxoom ba ci ay concam ak ci tànkam ba ci ba ci ba ci dojoram daal di mucc na ci bépp bàkkaar ba xam defoon na ko ak mbalim ay ñaawteefam day mel ni bis ba ko ndeyam jure ci set ci bàkkaar su taxawee jëm ci julli nag yàlla yëkkatil ko daraja su toogee ba ñu xam da doon jàpp ngir yàlla rek julli tax koo jóg mu toog doon ko mucc doon ko itam ku ñu jéggal loolu kon da ko jural ak njëgal waaye nag bu fekkee da caa da caa jàpp dafa jàpp nag doon du waxtu julli farata waaye mu julli ci ñaar rakkaa rek sunu moom yëkkatil ko ay daraja ca loola saa bu taxawee jëm ci jëm ci jàpp walla jëm ci sangu ba yéene ca raxas go muy raxas cër bu nekk yéene ci tuub ci lépp lu lu mu tooñoon ca cër boobee nee na bàkkaar dafay ànd ak ndox ma moom jëfandikoo rootaale buy génn jëm ci jullit di julli ji na ci yéene julli kese kese na ci yéene bu fekkee julli ji moom xam nga bu dee njàpp wala sang neen nañ ci yéene ak tuub waaye bu dee julli ji moom na ci yéene julli dong loolu dana ko dana dana ko may su ma yëkkatil ko ay daraja fa moom subhaanahu wa taala kon loolu am solo la ñu xam ne e, tomb bi des na jeexul ndax tuub dafay lu yaatu lool lu làmboo lu bare bare bare bare waaye incha allah bu ñu desee ci yeneen ajjuma dañ ci gën a dañ ci dañ ci delsiwaat gën koo yaatal incha allah jox leen dig daje incha allah benn ajjuma ci waxtu yi ñu gërëm El Hadj si Sylla ci e, caméra bi di gërëm ñi ci jàppoon ñëpp ñaan suñu bon defal ndimbal tawfiq xiin nu ci ñëpp te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wajjahtu kulli ilaa sil fadli wal minani abdan qadiman lahu bil fardi hamdi wa shukri li baaxin la sharika lahu على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني wa kaana lillahu bi tafsiri wal amani